dafa am xaw ma àndandoo laa ko mën a tuddee xaw ma su ma tëddee guddi dama koy gént des fois mu nekk góor des fois mu nekk jigéen des fois mu seex man wala su ma amee copain wala dara daf koy menacé moom ci boppam. yow rab la. mën na nekk rab xaw ma nu nekk la may dikkee man. depuis kañ ko njëkk remarqué loolu noonu ci yow. yaa ay trois ans. waaw waaye benn jour dama ko gént mu ne ma. mu feeñu ma école bi ma doon jàngee primaire mu ne ma depuis bi nga bi nga nekkee école bi laa la topp depuis bi nga nekkee lii laa dugg ci yow moom wax la loolu wax ma loolu waaw mu ne ma depuis bi nga nekkee primaire mhm. laa dugg ci yow feeñu ma comme ku ma bokkaloon classe yar kanamu sa waa classe quoi boo bokkaloon temps yooyu waaw ku nga xam ne ñun ñaar ñoo bokkoon classe et tout mu feeñu ma comme loolu su man amee copain tamit nit day ñëw ba bëgg ma takk et mu jaxase des fois ma toogaa sama copain mu def ñu méttitu bopp ñun ñaar ñëpp des fois ma gént muy xeex moom sa sa bi di sentir méttitu bopp bi ngay sentir yow waaw day am méttitu bopp wala mu jékki-jékki mere ma duma ma woo te jotewuñu daara man damay xam ne ne loolu mooy def loolu parce que miis naa ko day répété wu à chaque fois day dem ba ci copain yi am nu mu leen def tout récemment rek sama copain bi ma amoon daf ko menacé ne ko boo bàyyiwul kii dina am lu metti lu la dal copain bi nga am la wax loolu. waa mais nu mu ko waxee ci gént wala réalité nii. ci gént la ko wax trois fois mu gént même chose. moom tam mu tiit am fu mu dem. kooku daal ne ko kii li nekk ci moom daf ko possédé. bu continuer di màgg ci moom sa jëkkër bu mu am dina ko rey. rey sa jëkkër yoo am. waaw loolu la ma wax. waaw léegi nag man dem naa fu nekk faju parents yi des fois duñ la gëm duñ xam ne nekk ci yow mais man du ma tëddee guddi du ma nelaw daf may sonal. doo def ay daanu boo bëggee am examen mu la koy tere am étu tout. ok doon naa def benn concours damay def concours bi may am ku may ñaan lu jox ko big bi dafa réeral bi ci bi ci dafa wat kooku bi mu si ñaanee ba fanaanoo bigi ba tëdd def ko suufu njegenaay bi bi mu yeewoo benn capuchon bi la gis bi ci watt bi ki dem yoonam. waaw disparaître léegi fu mu toll nii mais à loolu maanaam ni muy jàppee sa xol jàpp sa xolu copain yi aussi amul lenn loo xam ne dina la koy def physiquement say parents di ko gis maanaam mu lay dem loo di la def di la daanuloo wala di la feebarloo du la def dooy yëpp. du ma def loo lool mais dafa may bon lool. góor man góor du ma jege moom damay soxor si ñoom. damay soxor dam dañ ma naan sax da nga ñàkk ittee da nga dëgër fekk moom mooy intérieurement moom moo may def loolu. Ah, da lay fiire aussi quoi. may def loolu yëpp daf may yàqal daal lu bari te yàgg na ci man. sonn naa daal léegi yow say parents mos nañ la yóbbu fenn nga faj wala bu dee affaire copain daal duñ ko gëm ndax sa âge parce que buñ la xoolee xam ne xale nga waaw duñ ma duñ duñ gëm ne duñ gëm duñ gëm li ma leen di wax man maa ngi dëkk ak sama papa laa dëkkal dëkkum samay parents dañoo divorcé mais moom sam sama yaay loxoom jotul ginnaawam du man di ma yóbbu fu nekk di ma faj sam papa góor la du man comprendre yene ta man tam duma ko man diko expliquer le ale ci serigne say copain wala ya fa sa bop man dama don andal sama ben tante bu nga xamantene kan, eh? mom la tax dal comme sama yaay la mom la dan andal di dem di faju waaw mais moom moo doon dimbal ci faj waaw mais affaire day calme bu des fois ñu jox ma téré sax suma tégué téré bi suma togué une semaine jëlat ko téré bi day ñuul ci ginnaw day ki day lak ci ginnaw ñu ko lakk carrément ngay gis. waaw day ñuul kuk. yow kon affaire bi euh, métti na te sonal na la dem. des fois mu nekk góor des fois mu nekk jigéen. te da koy gént nii mu ñëw di sëy ak ba pare bu pare di wax ak yow. seex man des fois mu tegal ma petaaw di ma seetal. moom ci waxam. waaw mais di la wax loo xam ni boo xëyee wala yeneen jour après da koy gis. waaw man sax damay am intuition lenn ne lii damay mel ni damay gis daal des fois mais daf ma sonal. une fois ma am copain wala ma war a sëy wala ma war a ñu war ma demander mariage wala dara rek si la may gën a attaqué sonal ma. dafa fiir daal. waaw mën na ni rab bu góor la. góor day nekk jigéen am na ñu ma ne ñaar nga am góor wala jigéen am na ñu naan ci ne la mais doo xam. ñu ne la dafa topp daal. waaw te bu ma ko dindiwul bu baax si man fu nekk dem naa fa nag pour faju day ñëwaat rek. yow am nga bag. am naa bag depuis 2012. 2012 mais fi mu toll ah defoo dara nii déedéet maa ngi maa ngi def stage ni ah yaa ngi def stage sama jàng sax dafa bari léegi ta dama daan am note yu baax jàngi école yu baax am note yu baax mais dañ ma naan sax mooy xaw a yàq sa jàng mhm. dañ may wax loolu yëpp doo gis tamit mu lay tiital maanaam ñëwal ñu ànd du genre si gént xanaa waaw te gis nga ni moo ko waxee nii su ma tëddee guddi ba tëdd sama nopp yi lay riiral ba du ma mën nelaw daf may sonal tànc ma si lal bi parce que su ma demee si nit rek pour mu faj ma wala ma dem wax ko kenn rek daf may sonal. Mm-hmm. ah yow déjà ni nga ñëwee fii di ko wax maanaam mel ni koy xaw a dénoncé soo demee nii te ak nga am problème ak moom. waaw daf may sonal bu ma tëddee guddi du ma nelaw. metti na de. léegi ko loo bëgg sëriñ daal. ma bëgg même bu fekkee ku ma faj daal ñu boole ma ku nga xamante ne dina ma mën a dimbali si affaire bi. mu dindi tàqale kaal tàqale la ak rab bi daal. mais sa papa est-ce que mos nga toog moom comme ni nga toogee ak man nii wax ko lépp ci rab. wax naa ko mais réagir si dara wax si dara. mais wax ci dara mais est-ce que gëm na ko aussi est-ce que wax ko li mu lay def carrément yépp wax naa ko tout récemment rek dama gént ay 4 heures du matin muy xeexaax man di ma dóor dóor sama bopp dóor sama bët di xeex xeexaax man yore genre butéelu verre di ma dóor. dama yeewu rek amee métitu bopp trois jours sama bopp bi di métti ji da jàpp sama bët yi ma foogoon ne sax temps sama tension moo bese wala affaire yooyu ma xool mais nekkul woon tension. mais après xam wax nga ko ne lii laa gént moo ma jàpp nii. wax naa ko mais ñoom dañ may xaw a négliger aussi. Mhm. parce que ñoom duñu xam man man intérieurement man maa xam affaire bi lu mu may def ñoom duñu xam. c'est vrai que yaa xam aussi li ngay dund quoi ñoom duñu mën a comprendre tamit. Hmm? Mhm. yow depuis trois ans nga ne yaa ngi nekk ak moom. waaw hmm? depuis trois ans daal laa ko remarqué mais si gént bi nee na ma depuis bi ngay def primaire école bi laa dugg si yow. ah wax na la lool ne la yàgg na ci yow mais xanaa dafa dafa deful woon effet daal maanaam fësal lu woon. parce que ki may kii nee na ma day gën a màgg sa yaram te boo demee boo ko fajulee jëkkër boo am dina ko rey wala doo man sax nekk kenn. ñoom hmm. bi moom garaaw na te soxor. ndimbal daal nga bëgg ci wàllu faj daal sëriñ bu ko mën dindi ci yow. ma faj wa mu dimbale te yaatal waaw massa